tey dañoo ñëwoon tey li nga xam ne mooy aadi taalibe di yoon wi doon joxe si suñu bopp doon joxe si jébbalu si fab suñu bopp jox ko kii nga xam ne tey moo fi nekkoon Serigne Touba gannaaw boo xamante ne kii nga xam ne moo fi nekkoon di alxalifatul am di Cheikh si Sidil Mokhtar mi nga xam ne liggéeyal na fi yàlla liggéeyal fi Cheikhul Khadim liggéey boo xam ne liggéey juróom benn at yu mel ni fanweeri at wala ñeent fukki at yàlla subhaanahu wa taala yàlla yokk ay leeram def barke bi nga xam ne moom la fi bay mu bàyyi ko fi ba jullit yëpp ak murit yëpp séddaloo loolu moom dañuy ñaan yàlla di ñaan yàlla nekk ci ki nga xam ne moom la fi yàlla teg tey nga xam ne li ñu wax rek mooy xanaa tur wee yees turu xilaafa gi mooy yees ci moom waaye ku xam na ne lépp loo xamante ne ab xalifa nekkoon na fi di ko def mi ngi ko àndoon ak moom topp leen topp kufu nangoo toppe lool nangoo ànd ak ñoom lool lu baax lu nekk ci àdduna mu def ko fi di koo xam ne nun ñi nga xamante ne day nun la tuddee ay doomi soxna nun mun nu koo fay mun nu koo fay ndax li nga xam ne ma loolu defal dafa rëy rëy goo xamante ne kenn mënu koo fay bi ma ñëwee daf ma wax ci làmmiñam ne ma Moustapha la ma la waxoon laa lay yeesal dama bëgg ànd ak yow liggéeyal sëñ dama bëgg ànd ak yow liggéeyal sëñ dama bëgg ànd ak yow liggéeyal sëñ bëgg ngeen bokk ci seere yi may seere ci lii nga xam ne moo di sama taalibe ma bëgg ngeen bokk ci li may seede ma ne ko sëñ bi loolu de dara ju rëy la xanaa yaa nu ciy jàppale yaa nu ciy dimbale noonu nag joxe nañu suñu bopp nanu ko daan defee nanu ko suñu waajur digalee woon naka jekk te moo di ku fi nekkal sëñ Tuubaa fab leen seen lépp jox ko ndigal loolee tey jii def nañu ko maag njaboot bi nga xamante ne ñoo ànd ci biir kër Baye Sëñ Jatara bi nga xam ne moo nekkoon ilimaani Touba kon loolu yi ñi ngi ñaan yàlla sëriñ bi yàlla yàggal ko fi lool ba mu eggale naalam yëpp ba naalaat naalaat naalaat eggale li fi nekkoon tàmbaliwaatal boppam ñëpp taalib yëpp seen xol dal seen xol sedd na am yër ñëpp am yaakaar tey ci jëmm ju tedd ji yàlla ko fi yàlla yàggal lool te bàyyil nu ko fi wattul nu ko ba dara du ko jot ba li mu bëgg def lépp mu def ko wa ma zalika bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullah